labbayk allahumma labbayk mbokk seen mbokk imam Mokhtar Ndiaye moo dellu di waxtaan ak yéen ci émission bi nga xam ne mi ngi koy faral def ci sit bi di la Vallée Info tey nag thème bi ñuy indi di thème d'actualité nuy waxtaane tem bu am solo boo xam ne moo lëmbee réew mi nu koy wax ganale yi xam ngeen sunu ujaaj yi yi demoon baytillahil haram commencé nañu dellu si fii ci réew mi te wax dëgg yàlla ku dem màkk ba ñëw set wecc ci bàkkaar taqatoo dara ndax yàlla moo la garantil ni jéggal naa la sa bépp bàkkaar kooku wax dëgg yàlla la nga war def mooy delloo yàlla njukkal sant ko ah defe naa ne nag nit ku am xel nag doo dem màkk ba ñëw yàlla setal la ci bàkkaar ba nga set wecc ngay ñëw di tilimalaatal sa bopp te nag am na xew-xew yu fi commencé xam xew ci réew mi nu koy wax ganale dëgg la màkk rëy na lool nit ki boo demee ba ñëw wax dëgg yàlla toog dellu sa biir mbokk sant yàlla wax nga saafu anteeg say mbokk la nga jëlee màkk ci charité lu mel na tàndarma ba ak zam-zam ba nit ñi barkeelu ci nga ñaanal leen yàlla loolu nu xamoon démb waaye tey ganale yi tey dafa jël benn empleur boo xam ne tey bu jéggi dayoo la muy façon xew-xew yoo xam ne lu folklorique la lu safaanoo la ak diine ndax yonent bi mosu ko def mosu ko digle ay saxaabaam naka noonu te islam du diine goo xam dafa dëppoo ak po ak caaxaan déedéet te folk te nganale yi nga gis tey daana ko yëpp po la caaxaan la mumbaay la jóge màkka ñëw tànt koñ ba koñ teg sa mikro di lor say dëkkandoor di delluwaat di timmal tilima dalal sa bop ci ay bakkar wax deug yàlla mbokk yi dara jaroko te ngandale yi bo xole ba ci bir lépp yàqum alal la pasar pasare alal la te gis ngeen ci alquran yàlla dem na bani wala tubazir tabzira inna almubazirina kanu ikhwana shayatin muni moytu len di yàq alal di pasar pasare alal dem na bani ni katu alal yi ñi pasar pasare sen alal ñom noy mbokki shaytan ci kaw suuf kon islam gërëmul benn yoon xew-xew bu nuy yàq alal xew-xew bu nuy pasar pasaree alal te gis nañu ñu ci nganale yi pasar pasaree alal la yàqum alal la ak i pratique yoo xam ne wax dëgg yàlla dëppoowul ak diine lu mel na tey yi ñuy def di yebbi dafa wàññi ay millions yow mi demoon di am loo xam ne da ko warlul ay nit te sa carnet ndax dafa am lu ñu la joxoon ba ñuy dem yow tam nga am loo leen warlul finalement mu nekk benn puugare àdduna boo xam ne kenn xamul lu mu doon la ca nekk di ngistal te ngistal wax dëgg yàlla ak diine islam dafa safaanoo yonent tiba ali salaam dem na ba ni moytu leen bokkaale bu ndaw mu nekk yaa rasulallah lan mooy bokkaale bu ndaw mooy ngistal te nganale yi liñ ci gis mooy ngistal pire ndax da ngay wane sa doole di wane sa bopp di wane nan laa toll di wane si ban yax laa bokk di pasar pasare alal di wàññi di maye alal lépp pour nit ñi gis la te loolu mbokk yi dafa safaanoo ak diine kon li may dénk ujaaj yi nga xam ne dem nañu ba ñëw mooy nañu am seen fulla ak seen fayda ba tuyaaba yenu jële màkk yiw yenu jële màkk bu leen ko kenn xañ ndax kat ku ñëw tey di la encouragé ci nga ganale pour réew wane sa doole wane sa mën-mën kooku mi ngi lay xañ yiw ya nga jotoon am te ku set ci bàkkaar ba noppi wax dëgg yàlla te muy lu rëy lu jafe ndax ku yàlla setal ci bàkkaar amul ko gën a rëy kon nag ku mel noonu bul ñàkkaat fayda di tilimal sa bopp ci ay po ak i xeeti caaxaan kon maa ngi lancé appel sénégalais yëpp rawatina ujaaj yi ñëw nanu fexe tuyaaba yenu jëlee màkk ak yiw yooyu nanu fexe sàmmal ko seen bopp bu leen ko kenn yàqal te nu moytu xeetu po yi nuy xewal ci réew mi muy nganale yi ndax dëppoowul ak diine dafa safaanoo ak sharia ndax islaam du diine po diine la goo xam dafa mos a condamné yàq mos a condamné Euh, po mos a mos a condamné li nga xam ne mooy pasa pasare alal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem na ba ni yàlla tere na leen ñett ba ci njëkk mooy di wax wax yu ñàkk solo muy ay rumeur ay bavardage yoo xam ne wax yoo xam ne amul benn njëriñ tere na ko xeetam ñaareel ba tere na leen di yàq alal di pasax pasare alal ñetteel ba tere na leen di laaj laaj gu bëri kon yooyu yonent bi daf ko araamal te biñ ci gën a itteel nag mooy yàqum alal te alal ji ñuy yàq wax dëgg yàlla mën na xaj ci sunu njaboot rawat nag ci seen wàllu ñàng ci seen wàllu éducation ci seen wàllu santé ak seen wàllu bien kon daal mbokk yi loolu laay ñaax sama bopp di ko ñaax mbokk jullit Sénégal yépp nu xam ne nga ne lii nan ko moytu nan ko bàyyi ndax dañuy day mabbal sunu yiw day tilimalaat sunu der ci ay bakaar asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa لبيك اللهم لبيك